Lumna sukar Allah maktabatu Touba Darou Saam njiit la di bàyyi sëriñ lay ñu ràññiku lool ci bépp jumtuwaay bu jëm ci dundal diine mu yaatal ay bànqaasam nag tax na mu ubbi leen makkaan mu bees ci dëkk bu sell bii di Touba ci yoonu gede wi boo jugee jumaa ji jëm gede mi ngi lay féete ci sa ndeyjoor jàkkaarloo ak kër sëriñ Mamor Mbàkke Murtada lépp lu ngeen soxla ci wàllu alxuraan ci mbindin yu wuute ak ay mool yu wuute rawatina kaamil yi nga xam ne sëriñ Abdoulahan Mbàkke moom sëriñ Soy bu moo ko bind wala sëriñ Amidun Lo wala sëriñ As xeeti kaamil ba ci kaamilu doore yi nga xam ne ñu bëri taamu nañ ko ngir joxe ko àddiyee wala jox ko ku ñu fonk bu dee téere xam-xam yi niki noonu wala téerey sëriñ Abdourahmane Mbacke daalu Muxti wala téerey sëriñ Alaaji Mbacke yi nga xam ne moo xam muy tombi sëriñ bi di waxtaani sëriñ bi wala sax ma faatihul jinaan di diiwaan bi nga xamante ne bii dajale na lu toll ci juróom benn téeméeri xasaayit ak ñaar fukk ak ñeent bu dee élèves yi tamit dañu leen a beral bépp téere bu ñuy teewoo ci seen wàllu programme moo xam muy wala français am na fi bâtiment plus import export si Touba mbokk yi ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàpp leen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol ay sol grès italien 40 sur 40 30 sur 30 60 ay grès poli italien sur 60 carreaux de haut ay grès italien tout venant d'Espagne sur sur 30 damani am nañu ay produits jóge Inde 25 sur 37 wala yeneen gox si àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaruwaañ 25 sur 37 lépp mu ci waaye nag mbokk ñëw leen ngeen découvrir sunu ay lumière am nañu ay contact dernière gamme ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak leen bâtiment import export mi ngi si Touba Daaru Xudoos jàkkaarloog marché bi ah mbokk yi lumière décoration ngir seen chambre seen salon seen balcon liñ la si defal amul fenn shukran lakum shukran ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ dee jube inna alhamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dénk suñu bopp di dénk mbooleem jaame yàlla yi nga xam ne nangu nañu ku dénkante ak ñoom ñu gën a fab suñuy tànk teg ko ci taqwallah mooy sax ci ndigali suñu boroom yi te bàyyi ay tereem suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan ne ab dëkk ngi nii ba mu koy wax dëkk boobee la joxañoon waaye fu aw jullit nekk ña nga ca biir dëkk ba mu ne ab dëkk ngi nii boo xam ne su ñépp maase woon gëm yàlla te teg seen tànk ci taqwallah yàlla dana leen ubbil barke ak lu barkeel mu jóge ci asamaan si ak biir suuf si walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard waaye nee na nit ki amee taqwallaa te gëmut ne bis penc a ngi ñëw bis penc nit dana ko weddi ba noppi di tuddloo ab jullit mooy koo xam ne lu ko neex def nee na bis la boo xam ne da gis gone gu ndaw gu be jaaw ndax tiit asamaan si di xottiku ku ne xam na fanaan cib néeg muy taw muy senn ndox mu yuy ci kawam asama nañ ko tuddee woon ca jamono yooye mooy boo toogee ci néeg téeg ga ngay gis sama ul bayit ñoom lay jox misaal ci ne dangay gis nii sa néeg bi xotti ko muy senn ngelaw li di ci dugg soo tafee fii fee xotti ko waat nee na bisi ngi ñëw asamaan si dana la def adduna ji tukki te nee na yàlla kat lu mu digee dana ko def kon mbokk kum agsi ci yow bu fekkee sab xol a ngay dund bu la fàttalee gaawal na coow ca yoon wa fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alu wildaana shiiba as-samaa'u munfatirun bihi kaana wa'duhu maf'uula inna haadihi tadkira fa man shaa ittaxada ilaa rabbihi sabiila bëgg a fàttalante mooy lu barkeel bokk yi bu jant fenkee ba teg tuuti yoon woo jaar da ngay gis raj-raj loo ba ñii di wut luñ dugg ñii dugg nañ ca ba noppi ñii amaguñ luñ dugg ña ngay dox di seeti fuñ ko duggee ñenn naña fañ jëm dox mën na leen fa yóbbu ñooñu ñépp nag lañuy wuti moom la ñépp di wax luñ terloo teral ci seen waa kër teral ci seenu njaboot ñu bari moo leen tax di xëy dangay gis ne nag xëy ak wàcc bi danaan gàññ bu waxtu wu xëy jotee noonu lay mel fépp fees su waxtu wàcc jotee fépp feesati ku ne bëgg dellu fa mu jóge woon mel ni daal kër kër ji bari na waaye dangay gis ne saa su ne dañuy gën a bëgg lañ doon wut te lañ cay am di néew lool ñenn ñi sax duñ ca dara far loolu nag la ko waral mooy lu bari ci yëngutu ba daa barkeelut dafa barkeelut ñàkk barke dana dal nit ci waxtoom waxtu woo xam ne xool na xool jëlewu dara dem na ci neen danga gis koo xam ne alalam da dul barkeel dañ ko naan loxo bu bënn nga yore day def ni nit ñi di liggéey di wàcc waaye li nit ñi man du ko man ndax lam yor daa barkeelul waaye danga gis koo xam ne it ci ak njabootam da ko cay dal da ci am ñoo xam ne dañoo barkeelut ci suñuy wax yi démb sax wax nañ ko nee nañ ñàkk am doom bokkut ak yara dal ñàkk am doom wala jur miy dee du yara dal yara dal bokk na ca jur mu ne léegi te mënut dara mooy ñàkk barkeel waaye nit it dana mënub liggéeyam lool nit ñi di ko wër ku ne bëgg mu liggéeyal la te du ca man dara daa barkeelul lay waral lu mu am ñàkk ko mu di ko dal ci njaboot di ko dal ci alalam di ko dal ci liggéeyam barke da caa nekkut yàlla nañu ca la musal kenn ku nekk mën naa laaj boppam bu fekkee barke am na jaamu yàlla gi muy def lu koy xamal ne barkeel la la koy xamal ne barkeel na bokk na ca bis bu set mu di see gën a sawar su fekkee bis bu set fa mu yemoon da da koy bëgg a romb ak jaamu yàlla ma ngay barkeel waaye koo xam ne daal lank kandaare cig jaamu yàlla na xam ne la muy def tuddi ko jaamu yàlla du barkeel day mel ne moom kenn muy gas fukk di suul pën dafay bari waaye du du am pax yàlla duñ ca la musal waaye kenn ku nekk war naa laaj ay waxtoom lam ca gis ne barkeel na ca mooy bu xoolee ginnaawam xool ne waxtu yépp lu ci wu ci jàll rek def na ca la ma si man ci lu baax te bañ koo teg ci ak tànnam bis ya noona weer ya noona ak at yi noonu da nga gis at ba at ma jàll du xam lu mu ca def ci lu baax yal nañu ci yàlla musal waaye kenn ku nekk it su tiimatee ndab wala mu yor lu mu jënd di ko lekk it na xool ba xam moom li muy lekk mi ngi barkeela waaw wala déet xeetu lekk wane nit dana ko lekk te du tee ni suuti mu tàmbali xiif mooy la muy lekk lekk ga daa barkeelut ndax lekk ndax biir du mooy su mooy fees mu ne suur na waaye am xel mooy dal rawatina nag la muy lekk mu xam fu mu ko jëlee waaye li ñu daan wax tarbiya bu njëkk yi warees naa seetaat ba xam mi ngi meññ waaw wala déet yi meññ te amul njëriñ bari na de këti jantaa ba day meññ gàcc ak i diggam ne sañ mel na meloon daaw waaye ku ko laal xam daa barkeelut <coughs> kon bokk ku ne war naa xoolaat ba xam tarbiya mi ngi jur njariñ waaw wala déet mooy lan tarbiya mooy tàggat nit ki làggal ko ci jaamu yàlla ak def lu baax fexe ba su fekkee yaa nga ca woon nga def ko nii nga mel lalay lay xamal ne barkeel na nag mooy kala ca jaarale woon duutoo ko fàtte ci sa dund ndax saa su ne nga xool lam la doon def la ca doon niru lu metti lépp njariñam yaa ngi koy gis léegi barkeel na waaye waris naa xool tam suñu alal lu ko tee barkeel junj naa ko léegi mooy wut rek mel ni ku yor ab radu ay gëtam neexut day xëcc rek muy ñëw nu mu ñëwee baax na muy rocc garab nu mu ram rocc ko waaye léeg-léeg nag nit rocc garab goo xam ne gii day yendoo sekki nit ñi yendu koo sekkile waaye léeg-léegi nga gis koo xam ne kii day liggéey ñu di ko fay weer léeg-léeg war naa xool ba xam li muy liggéey mi ngi barkeel waaw wala déet dañ koy fay loo xam ne kuñ ko wax loo loxo dem gémmiñ ndax bari waaye su amee ñetti fan mu tàmbalee demal ca bitigu diw mu jox ma nangam demal ci diw mu alma nangam ba weer deyaati daa barkeelul waaye nag bi mat a taxaw dëgg mooy suñ dund yi ba xam ba xam barke am na ca waaw wala déet danga gis ñun ko dund juróom fukki at kii juróom benn fukk kii juróom ñaar fukk kii juróom ñett fukk yu teg waaye bis bu faatoo lii gën a jafe mooy xool lenn lu mu fi sottal ci kaw suuf si lu amal nit ñi njariñ lu amal diine ji njariñ lu amal xeet we njariñ dara googu dund barkeelut bokk yi dund ko barkeel bokkut ak at yu bari mu bàyyi fi alal ju bari ñu bari séddoo ku ne am ca lu bari déedéet loolu alal la waaye du barkee du alal ju barkeel alal rek la waaye li tudd barke dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne ay atam bariwut waaye ba fi mu ne ñu ngi koy waxtaane ndax njariñ ñu lu mu amaloon euh, diina ji amal ko réew mi amal ko xeet danaa jële fu sori doo a indi fu jege bu ñu demee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma yonent bi ci boppam waaye ña àndoon ak moom doy nañuy misaal am na ku ñuy wax jaafar ibnu abi taalib fukki at ak benn def na ko Afrique euh, lu ak wuute am am ci xabasa mooy fan ci Afrique ñi ne mooy Éthiopie yi xew léegi ñenn ñi mooy Érythria gi dagg ci Éthiopie waaye suufu Afrique la nekkoon moo tax Afrique ku ci bokk war ngaa yëg sa bopp xam sa bopp xam ne ba lislaam demee ba ne ciy tànk tànk fa la xel dem ndax ba fa yonent biir di la dane buur a nga fa bopp kenn du tooñ kenn ca kanamam jox nañ ko cir tey ku ñëw mu fat la Afrique lañ jëm si woon Jaafar moomu def na fi def na Afrique fukki at ak benn ci atum juróom-ñaareel ba ca gàddaay ga ca la soog a fekk yonent bi sallallahu alayhi wa Madina Jaafar moomu nu mu def bañ di ko fàttali ko ba tey jii gënu fee gudd fan ci ay at waaye ba yonent bi yab la ci ab xare jiital ku ñuy wax Zayd ibnu Haaris Haarisata dane su mën a tut nañ ko jox Jaafar kon Zayd ci déggam xamoon na ne du dellusiwaat toftal ko ca moom ba yàlla dogalee ca moom lam dogal Jaafar sës fa jël raaya wax jiite xare bi waaye tax di ko fàttaliku ba léegi si laata muy wujj sunu boroom ca xare boobee dañoo dog yaar yooyu xoom yépp dagg nañu loxoom ndey jooram ba mu yore woon raaya wa mu teg ko ci loxob càmmooy bi taxul mu daanu ñu dagg loxob càmmooy ba mu kepp ko ba ba muy daan keneen këfaat drapeau kooku la tax ñu di ko waxtaanee du defee jaaroon rek dem waaye dafay jëf loo xam ne bisub kero ba léegi ci kenn du ko fàtte dund ko barke la nga noonee moo ne ku ñuy wax Ali ibn Abi Talib mi mbokkal benn bàyyi tam day ba yonent bi gàddaay moom la indi néegam ne ko néeg ma fi jox ko mboolem lañ ko dénkoon ne ko demal jox diw joxal joxal diw joxal diw bañ ko yootee ba war koo jam dañoo xool ne du moom kat waaye loolu lu ñu ci bëgg a waxtaane mooy ak dundam xajoon na ca loolu mooy dund ko barkeel waaye usamatu nu zeyd jiite woon na ab xare jërut may wax ñaata at la amoon ab armée ne ca digg ba jiitu du joxe ay ndigal waaye at yam amoon ñu bari ñun jur nañ doom yu ko mag ñu bari ñu jur nañ doom yoo xam ne ëpp ëppale nañ at yooyee moo ne Samra wala Sumrat ibnu Jantab ak Rafi am na Xadiij ñoom ñaar ñooñ ñoom ñaar ñoo ñee seeni at it ku ne ci ñun jur na doom yu leen mag du seen at ya waaye seen pas-pas bala ak seen dundu googu nar gaa barkeel moo tax yonent bi sallallahu suñ masaan sas fas ab sëy bi nga xam ne ci la jullit yi juddoo daana daana sa ñaan sëy bu barkeel naan baarakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma fi xayr moom la mag ñi daan jël sax naan dégg na alxayr yi yonent bi da ko ca daan ñaan ne na yàlla barkeel sëy bi sëñ bu mag bi bi mu koy leeral daf daan wax ne moom yàlla na ci jàmm jëkk barke mujj ci mooy barkeel Anas ibnu Malik nee na yontu bi sallallahu alayhi mas na koo wax ne ko foo demati ba dikk bul romb sa waa kër te nuyu woo leen bu dee suñu nuyoo ñun ci suñu suñuy aada ginnaaw asalaamaaleykum mooy nangam ku nekk nga jàccew ndax nee na ko di nuyu sa waa kër day barkeel ab ànd sa digganteeg sa waa kër moo ne ñun de ci suñuy biir am na ci ñoo xam ne duñ nuyoonteeg ñu leen gën a jege ci bokk kon ñooñu seen dund barkeelut dañuy lekk ak dem dama ko dikk dong waaye dund gu barkeelat la ñuy dund te xamuñu lool su ma waxee sëy boobu nag. yonent bi daanaka ñaan barke sëñ bu mag bi tënk ko ne yàlla na ci jàmm jëkk barke mujj ca dañ ko daan waajal dañ ko daan waajal dawuñ ko def rek nii lenn suñ mbokki africain yi di def ci ay jamono bu yàggoon danga gis koo xam ne day ubbi ab restaurant cin la muy togge di jaay nit ñi yàpp yépp la say togg yàpp yépp yàpp xar dana ca nekk soo ne ko xar mu génneel la yàpp nag nekk ca soo ne ko nag mu génneel la yàpp mbaam xooxu nekk ca soo ko nee génneel ma mu génneel la ko waaye ñoom ñëpp ñoo bokk cin li ñooy bokk di bax yàpp yàpp la waaye yàpp nag bokkuñu nit ñëw ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko daa bëgg mu yeddal ko doom ji ndax ab yar moom dara yonent bi ne ko doom nga wax wala kan mu ne ko doom mu ne ko anam mu ne ko mi ngi nii mu ne ko jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko yar ko weesu na mu ne ko gone ne ko yar ko weesu na xanaa daa xamutoon kam doon waxal waaye koo xam ne wa maa yantiqu anil hawaa du juum mu ne ko lu tax nga ne ma yar ko daa weesu mu ne ko da nga ko waroon tànnal ka koy jur ba noppi fa nga fa mu weesoo mooy tànnaloo ku koy jur kon boog nañuy dimbale suñu njaboot di leen tànnal ka leen di jur ndax yàlla mu barkeel dugg ci ñaan googu yonent bi sallallahu alayhi wa doon ñaan euh, da gis màngo koo xam ne wala dimb koo xam ne ci garab yi ñuy jëfandikoo rek te kenn moomu ko dana gis ku ñëw ba agsi ca lu kenn moomu sax amul waaye nekk ci loxoy kenn daan daa sax ci rek moom la suñu borom di wax ne wa huwa alladi anshaa jannatin maaruusatin wa gayra maaruusaat waaye dangay gis ne mango gi léeg-léeg gis ñu bokk genn garab gi bokk benn dàtt bi bokk benn but bi tóor tóor moom mango nga koy defandoo waaye danga ci gis doom yoo xam ne day ñor xomm nit ñi di ko jëkkante ndax bëgg ko am ci doom yoo xam ne kenn du ko laal ndax ñorut am na ñu dëgër bopp di lekk màngo bu ñorut waaye ñi xam yaramu nit dañ koy tere gënut ci nit la ma ca bëgg a wax rek mooy lu barkeel sëñ bu mag bi nit nee na ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am soxna am ca doom ju barkeel ba noppi man ci sama bopp bu ma dee dem aljanna sëñ bu mag bi ne ko yi nga wax yépp yaar rek la sonn su baax ak doom ju barkeel ak dem aljana sonn su baax ak doom ju barkeel ñoo ànd kon dem aljana ak sonn su baax rek ngay ñaan sëñ bi bindoon na ko ci ab téereem wa zawjatan saalihatan tuciinu ala tuqaa wal birri yaa muciinu ne ko soxna su baax soo ko bëggee da ngay seet koo xam ne war ngeen a ànd te mën a ànd nga laaj ba yëfi kenn nekku ca nga def ca sa yëf soo ko ci defee yàlla mën na la ko ca mën na la caa jox doom néewu ko dana la dana la ko ci def doom yàlla koy joxe mën na la ko caa jox dee dem aljanna nag li koy maye yàlla wax ne ko ci alxuraan dangay jariñ nit ñi te bañ leen caa jéppi ne ko ña ngay jariñ ñaar lañ kii day ñaan nga yàgg fi yàgg koo jariñ kese moom sa gudd fan njariñ li nga koy jariñ dong la ca soxla kenn ki day am jom nara barkeel ci dundam muy ñaan nga yàgg fi ba mën laa fay moom bala ngaa faatu nee na bu faatu ñëwee ñaar ñi yow bu ñu fa dajee ku yà ku tàllal loxo ne yàlla yàlla nga yërëm kii yàlla mën na caa taseeg làmmiñ bu mu nangu ak ñaanam su fekkee bari nañ ne ko amal leen njariñ te bañ leen caa jëppi xam nga nu muy demee mu ne ko xamaguma ko mu ne ko mas ngaa gis guyaab garab yam tuddoon yu ñuy lekk la mooy guya màngo xaasew wala yi ñu xam suñ jamono tañ di ko lekk ngeen ko ndax mas nga gis ku gor ak mango di ko def ab gayat néegum ñax boo xam ne garab euh, banti mango lañ dagg daaje ko néeg mu ne ko mosuma ko gis mu ne ko njariñ lam am moo tax ak barkeel gam barkeel moo tax bu juddoo rek ba tàmbalee ami xob rek dañ koy aar koo gis dañ koy aar ndax barkeel ga ca kanam a tax kon bokk amal nit ñi njariñ moo gën ñàkkal leen njariñ waaye lay tax nit ñi mën a amal nit ñi njariñ it mooy dund gu barkeel koo xam ne gépp lu cay def yàlla rek tax mu di def koo xam ne buy jóg yàllaay tax buy toog yàllaay tax kooko bokk yi bu fi ëmut at yu bari it saa bu fi jógee kenn du ko fàtte ñu ngi fàttaliku soxna jaara ñun ñëpp ñoo ko mag ñi ko mag si bu ñu yëkkatiwul seen loxo jumaa jëpp kenn du des fanweeri at ak yat la ko gën a sori tuuti Seydina Isa alayhi salaam at yu toll noonu la amoon ci ñu gën a siiw la bokk waaye sallallahu alayhi wa sallam ñi ko mag ci jàkk ci jumaa ji bari nañ ba muy dem su dul woon ak yan bu diis bi mën naa bañ a tàmbalee ba jaawagun waaye ba muy woote naan ya ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamian boobu ñun ñépp ñoo ko mag kon yëfi du ay at waaye dund ko barkeel ci lu mu fiy bàyyi ëllëg lay doon maam Cerno bi ko siñ bu mag bi di dénk njaboot gi ñun ñépp ñoo ko mag te moom ku ci dul maam Mor mën na laa féete kaw ci at waaye nu def ba fii lañ ngi koy net nett di ko waxtaane dundam nga moo barkeel am na ñu tasee doon jamono ñoom ka doon kalaame si sëñ bu mag bi ñëw na ko dañ ma laa wooloo te sëñ Fallu Mbàkke nettali ko wóor na wóor yàlla ak njabootam ngi dund ndax yàgg gut waaye ana fu ñu leen di waxtaanee ak lu ñuy waxtaanee si ñoom dund kooko moo barkeelut ñoom nag yàlla mën na leen caa musal ndax ni ma ko waxee léegi suñu borom a wax ci alxuraan yuxrijul xayya may mayyiti yuluyu layla fi nahaar yuluyu layla fi naxaar mooy màngo dana jur suukar lañ ko xamee ak xonq waaye dana wex xat te fekk màngo koy ko jur ñooñu yàlla na yàlla wàññi seen seenu njaboot bañ bokk ci ñi gën ci nit ñi ndax jamono fa tollu woon rek waaye la ma ca bëgg waxtaane mooy ña nga xam ne dañoo féete woon ak yàlla moom ba fii ni ñoom la waxtaane kenn du leen fàtte donte seeni at liw liw di dem waaye kenn du leen fàtte ndax musuñoo wax lu ñu leen di xoole musuñu ko def ci seeni yoxo musuñu ko def ci seeni tànk ndox jëm ca musuñu ko xool bañ di leen ci jéppi yàlla na yàlla defal dund ko barkeel te defal ko jullit yépp yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin shukran lakum shukran lakum sunu ñu baax yi fi daan yare dinu wan di wuñ dee jubee lu jëm ci wàllu col lépp lu ngeen fi baaxoo gis rekk dañu ko yokk waaye wàññiwuñu ko ay xeeti cuuraay yi wuute ngir yéen ñi nga xam ne da ngeen yëngu ci kurus wala xeeti parfum yi ngeen di soxla moo xam muy sikki gerle wala oud ak yeneen ba ci wàllu imprimerie wala sérigraphie wala lépp lu jëm ci wàllu multi service waaye ngeen mën faa amee itam billet d'avion yéen ñi nga xam ne da ngeen di tukki waaye bu leen fàtte itam carte de membre yi nga xam ne moo soxal mbirum Touba ca kanam wala barkeelu yi bu dee moolu xasida yi am na mooli Touba daaru saam yi wala mooli asna xadim yi wala daarul himma wala daaru minam xasaayid bàyyiwuñ dara lépp loo xam ne daal soxal na jumtuwaayu murit ngir ay leeral mën ngeen a woote ci 77 144 03 03 wala 76 755 60 60 waaye nag ay ventilation assortie de luxe ah xanaa nag moom lii lu bees la dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle de bain bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu mucc ayib ay lavabo commode miroir led da laal rek mu tàkk lii nag moo xarala dama ni du kenn ku dul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir seen kër seen waañ fépp daal si biir gi yemb na waaye nag réservoir cinq mille litres ba cinq cent litres tànn sa bu neex lay fekkee nag peinture jàpp leen ni ñooy le numéro un des peintures peinture canadien yi gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus mani moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériel yu xarala nee naa la suñu ventilation si mbooleem marque am nañu ay windi 90 ay kulom tom kulom tom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine de douche chauffe-eau yi nag waaye nag ba ci gën a neex mooy automatique léegi la ndox mi di tàng même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Xudus jàkkaarloog marché bi bu ngeen fi lépp luy carreau sanitaire lumière peinture duñ mbokk yi yomb ma tax ma ni bâtiment plus import export notre force c'est la qualité